K-Man Vision, votre site préféré vous présente. Deux courants de Bourg, 5 millions de Dakarois. Le 3 juin, à l'esplanade du Musée des civilisations noires de Dakar, voici les fils de Mour, Akhloubrik Paradise. fait plusieurs cartons au stade Caroline Feidenbourg, après une tournée internationale dans tous les pays d'Europe, Akhlou Paradise est de retour sur scène. Tifateli, fàttali ñoom groupe nouvelle génération bi concert stade Iba Mar Paradise ñoom groupe nouvelle génération bi du musée des civilisations noires le samedi 3 juin 2023. Son et lumière, feu et flamme, Deiz et Ara arrivent sur scène à l'esplanade du musée des civilisations le samedi 3 juin 2023. Attention, 20 h le concert bi di Bala 0 heure mieux doxi seen 20 20 heures kon na a un tel tel dugg te ay ticket ndax ticket yi 3000 préventes. jour J 5000 VIP 10 000 et cet événement c'est à ne pas rater Infoline 77 493 93 44 77 030 05 10 ou le 77 383 31 85 partenaire officiel de l'événement Nescafé One xbet Sénégal kim nii nii du ma nitu fii e kaay leen bala maa dogali ñii ñii ñii tolluñu ma fii Sénégal kim jox boppa ngi nii doom bàjjan yaa ma waa doom nijaayaat ma dangay fekk baña ne lu ma xamoon hmm. bi àddunay baax góor moo daan fekk si jigéen waxtaan seeg moom ñu may ko ko mu indi ko ci biir kër gi yow may ma jàmm yow xanaa xamoo jamono ji léegi dafa changé léegi bu njëkk góor moo daan takk si jabar léegi jigéen ñi sax dañuy wëri jëkkër. ba tax nga sol say daal ñëw fii di wut si jëkkër. <laughs> Moustapha yow mi sama bos ngay wax waaye yow sa bos dinaa ci wax ndax yow Moustapha damaa xam ne fu ñu la fekk yaa ngi ci sa kurus gi ci sijaada bi ak say téere yow mustafa sa ngóor ñu ngi koy laam-laamee de xam nga lool yow sama rawdu nijaay bii fa ngay toog léegi dem na ba danga koy parfum yow bu yàggee mbaa doo dof. ah loolu yëpp garaaw waaye an bàjjan. ma nga fa sama yaaya nga fa. mu ngi si jaam léegi bàyyi na jooyee xanaa. bàyyi <laughs> bàyyiwul de Moustapha am na ñoo xam ne ñi bu génnee àddina dañ leen di gaaw a fàtte am na ñoo xam ne ñii nag bu ñu génnee àddina histoire du leen gaaw a fàtte te sama nijaay ci ñooñu la bokk. yàlla baax na nañ ko ñaanal rek. ñaan rek la dese. waaw ñaan rek la fi dese nañu ñaan rek. loolu de moo suñu tànk. jërë ngeen jëf maam Seexu umpule woon sa mag ji dem àllaaxira ñu hmm. àllaa yaat na. durum may sëy ak moom gërëm na ma du benn du ñaar. gërëm nañu kay. te fee mu nekk tëdd ca barsàq hmm. dama koy ñaanal yàlla xare ko àjjana fi daw si. yéen nag matale ngeen seen wàll ba mu mat sëkk. te bàjjan yaa ma umpule woon tund bii ba fi wàcc xale bu tuuti laa sa kanam la te mag ñi fi jóge woon ne woon ci kër gi di seeni baay ak seeni ndey bañ naan ko ba ñàkk sikk lañ ma daan tudde te loolu duma ci mës a teggi tànk duñu dem rek may soppeeku li ngeen wax nag dëgg la nit bu génnee àddina war nañ koo miraas waaye comme ñu ngi doog a fàq maa bëggoon nga mel ñu tuuti ñu dallu su ko defee ñu dajalee li fi nekk ak li mu bàyyi ñu jaarale ko li lépp ci lislaam wax du dëgg waaw miraas boobu ñu wax sax mooy dëgg ndax nit bu génnee àdduna ñun ñi fi des ci ginnaawam ñoo ko war a taxaw miraas bi ñu ko war a miraas nag mooy tax ba mu tëdd mu taali te ginnaaw nag ba mu fi bàyyee aaw bu baax bu mel ni yow nga xamne taxaw nga ko boobu ba léegi ba nga toge ba legi jugo ban nga ko kanam mat ko ginnaw ay mané ko ci ay <laughs> wax ji de moom xamna ne ken bolé ma ci. déedéet fa sam bul wax lool ndax mbam gatt na way ci jurgi la bok paré li sa bop man mën na défendre sama bop dégg bismillah ok ok. Euh, waxi miraas bi de dëgg yàlla ci lu ma ànd la te lu ma rafetlu la it waaye dafa am lu des nit bu génnee àddina dañuy xool testamentam ba pare xool li mu bind bàyyi fi tàllaaji lu ëpp ci alalam daf ma ko mayoon man mii ak samay doom ci soxna Maram daa leen loo ci sikk saak soxna Fatou Samb te ngaa wax say wax te nga bàyyi ma te xam ne man li nga tal taluma ko damaa nekk ci dëy danoo nekk ci dëy waaye yow maam seexu <laughs> maam seexu sa miraasu maam yaa nga fa woon ne déej toog macha miraasu baay wuute la macha allah yaa ngi toog. macha allah sa miraasu mag ji. macha allah teeweewaat nga bii di ñëw xanaa si bopp li ñuy miraas rek. non jubilee yaa ngi ciy tegu toog. Hmm. yow la ñuy miraas après xanaa. kan yow mii. wax dëgg rafet fat Samb. lan la nekkul nga rakk joo xamante eh. ni sa eh. na day génn àdduna nga nekk si ay jabaram ko la koy ko amul koy sàkku ak koo dul sàkku toxaluma sax noonu j'aime pas waaw ana Fatou Samb Fatou Samb de gu na ma démb ne ma daa dem seen wuti ji wàllu wàllu waaw ndax man de Fatou Samb damaa ndax mbir mi damaa defe ne woon ne da koo jàppe rek jàmm ak salaam def te moom yëf yi def ko ko jàmm miraas mi daal def na ne mbir mi xulloo xeex gajjante ak waxante li daal la def fa sàmm xanaa dafa xamul yàlla wax ci miraas góor ñaar jigéen benn fa sàmm de fa sàmb dafa wax lu leer nañ nee na sëñ Yatma moo ko bindal testament. testament waaw. nee na li ci mboolem alal ji ne ci kër gi yëpp ak la nekk dëkk ba yëpp moom ak njabootam la ko may. maag sama njaboot amuñu ci dara lu toll ni kopp amuñu ko ci. fa sàmm xanaa dafa xamul man ak Yatma ñoo bokk ndey ak baay te duma ci bañ dara te Yatma dafay bàyyi njaboot njaboot bu sew. ñoom du seen boo xamante ni si suñu ci kenn xamuñu kenn ko du seen bàyyi yàgg nga loolu xam te man mii di seen baay sax bon ma gëj gis naam yàgg na mais nag fi ne nii dama ci bañ dara dama leen di taxawu taxawu bàyyi. en tout cas waxu miraas mi daal bu dee daan dara indi coow damaa bëgg ñu teg ko ci suuf ndax lii yàlla santaane ko coow li daal yàlla santaane ko te borom ki dem mooy aj ki dem bëggul coow. yaay mbirum yàlla ci boppam moo amul en tout cas. ni ñu santane pour ñu def ko nañ ko defé non ba leen di ngeen di négliger ay. waaye yow sax duñ négliger yow yow Moustapha sa sa tante Fatou Samb bi ñu taxaw fi hein ah? kérok fi da da do ram la jël tek ko sama dañ hein ah? lepp lepp ngir daal mirage ni té man lim ko jaral jaralu ma ko man ndax sa bay moom ma ëppal lépp man. bu ci bañu dara ñu ne duñ ci bañ dara parce que man madam xoolal Moustapha Moustapha fo jëm. bay kii fan la jëm. xale la. man daal wóor na yàlla lii damaa sonn damaa sonn. lii dee wuute ko sax moom ko gënal ndax nag ne ci kër gi ñu wax waxi miraas ñii naan am njaay ñi naan indi jóob ngir la alal te ki ëpp alal gi sàppoon alal gi dem na ba alal gi ñun lii lan man damaa sonn sonn naa. kuma na ce wala ce. Kofar nan? Yanzu c'est. Vous avez ça va Ça va Vas-y, dame. Ça va bien. Vas-y, dame. Ça va Ça va Ça va bien. Va faire une autre. Ouais, ouais, ça va. Donc, c'est le gars. c'est faut le c'est Il yaat ma jóg bii de ñu ngi dëkkoon euh, kër Samba maa ngi ñëw foofu la dëkkoon chocolat. Ah, waaw ça va maman. ça va ça va. naka sa yaay dund. sant yàlla mu ngi fa si jàmm si jàmm bu baax. macha allah. dama la soxla kon baax na dem leen ci biir ba ma waxtaan ak seen bàjjen ba pare. déedéet toog leen ñoom ci lañ bokk de. bàyyi leen ñu toog yow Bintu yaa ngi mel ni ku bokkul ci kër gi. xoolal sa lii nga sol ah xam nga ne ay mënta weesu ñu ne la sa bàyyi dee na tegoo kool sa bopp bi defoo dara. man lan laa def yaaye waxal sama bàjjan kat mu bàyyi ma. yaayee waxal sama bàjjan mu bàyyi ma yow doo sax rus Bintu. xam nga ne lii la sa bàjjan wax mooy dëgg bàjjan mooy baay bintu dangaa warmaalul dara sa bopp xoolal li nga sol ku la gis ci kër gi sax day foog ne dëkkoo fi teel a teg sa greffage bi it nekk ak nu la yàlla bindee man daal nii la ma yàlla bindee nit de boo bëggul changer rek doo changer boo baax na papa il Mooi niks zo dom ga ik boven dat Ah, oke. Ingat. Yun ang nagdabo jab to ko. Apa nagyak fi don wa. Na telo. Fatim yow ya ba nga de. Wañ bi ni ko bàyyi si man nag wóol sa jànk bi nag mu ñibbisi. wax nga dëgg de yow de xam nga ne bu ci kër gi gis nga kii du moom laa takk yow mi laa takk fii yow yaa fi say séeréer yow tamit sa waañ bu tilimee wala mu takk am leen loo ci war a defar yow yaay ki ko war a defar dama nga defari ko waay. xam naa aw ma papa man du ma princesse su kenn et pourtant moom suba dafa war a sëyi. yaay sëy góoru léegi nga xamante ni dañuy xoole ba naaj bi tàng nelaw ba kër gi sedd yeewu solu lu ñu yor jëndee ko parfum ak sarbon teg si nag jaay lu amul yaay sëy moom merci rek. oui maman fii bàyyi ma tegal léegi te naan gouvernement bi jàppale wuñu mais avec ça nu mu tëkk bi di doxee ma ni suma doom a raison maa fi suma mm-hmm. doom mu toog xaaruma la woon ci loolu ma ni nga jóg dem defari sa waañ bàyyi jàmm <laughs> coow li bari na lool torop torop torop torop torop ci sama mag bi ba mu dëddoo àdduna ba léegi coow li bari na am yaat ma indi yaat ma am yaat ma indi yaat ma am miraas du ñu miraas ah ba mu tëdd du fa tàlli moom loolu du cëram liggéeyu ko fi ma ne nag naa ñëw waxtaan seeg yow comme yow yaay féetoo. dëgg yàlla yàlla dogal na ne moom maay féeteem te àddina sépp xam na ko. Ah, wax nañu ba am yaat ma indi gi nag. Mm. yéen yéen a ko guddal. boo leen nangoon lii ma wax miraas bi miraas nañ ko ba pare waaye yéen a ko yéexal bu ma sañoon tey tey jii lay doon ndax am naa fi ñaari doom yi. Hmm. ndax yàlla ma jël sama wàll dellu Paris. man moom sama étude rek ñoo ma ñor ak sama avenir. aywa loolu yëpp dëgg la waaye nañ ko def boo gis nañ ko waxtaanee moo ko jiitu. waaw d'accord naa. ngeen fekk si ma ci lii ma wax. ndax lii ma waxi dafa am fu ma ko teg bool ma ci fekki see bu leen neexee tay tay tay balaa muy ñi ñëpp kenn di tëdd ñu miraas miraas bi bool ma ci fekki siwul nag ah ñu bàyyi lépp noonu rek mu sedd. balaa ñu la ci fekki si daal dañ koy waxtaanee. nag man naa ngi leen di déglu heure boo leen paree rek ngeen wax ma. les programmes de Game Vision.